mu féete ci bët gànnaaru yang-yang moo nekkoon capital bu mujj bu royaume du Jolof barina na ay kilifa yoo xam ne taarix na seen jaar nañ fa. yang-yang rek c'est la capitale du Jolof Jolof c'est la capitale euh, des royaumes du Sénégal. waaw ku wax royaume du du Sénégal euh, wax ni vraiment que bu am solo ci wàllu histoire. histoire yang-yang nag de manière générale li may li may faral di wax euh, avant yang-yang nañu indi d'abord Céng parce que capitale bi Céng la ñu jëlee ko ceng yóbbu ko war xoox ñu ko jëlee war xoox nag lañ ko indi fii. fii ñu taxaw mooy la palais de Bouna Albouri Ndiaye c'est-à-dire fii la Albouri dëkkoon fii la Bouna dëkkoon te jii ñu ngi au niveau du cour royal de Bouna Albouri Ndiaye. li nga xam ne aussi mënees na ko cee wax mooy ci gox bii ci dëkk bii ñu nekk mboolem dëkk bu nekk ci réew mi ci Sénégal bàyyi woon nga leen xel parce que fii lañ doon fay see galak gallag nag moo doon impôt ci jamono yooyu muy euh, kajoor di bawol di siin di saalum di gànjool li nga xamee ni aussi euh, jàpp nañ ko ci bi nga xamee ni euh, njaajaan dikk na fi c'est au quatorzième siècle waaye ci quinzième siècle nag ci lañ yilif Fuuta Tooro ci lañ yilif ki nga xamante ni moo di Kayoor Siin ak Saalum Waalo ak mboolem dëkk yi nga xamante ni mujjoon nañ fi di dikk bi nga xamee nag dem nañ ba quinzième siècle nag ci la ñu yilif nag ci la ñu samp nag samp bi mooy ñu samp mbul samp làmbaay samp ndeer samp jaxaaw euh, samp kawoon ñu doon ay capital léegi nag euh, loola moo waral euh, ngay dégg ñu naan duni suuf yi fi nekk duni suuf boo fi gisee xorom a ko lal parce que gànjul xorom lañu daan andi sii ak saalum suuf la ñu doon andi kajoor suuf la doon andi léegi nag ci ci réñu euh, ki nga xam ne mooy Amari Ngoone Sobel ci la ñu xeex loolu ba Kajoor jot indépendance euh, si ak Saalum aussi négocier euh, seen indépendance la Gànjul aussi négocier seen indépendance mais ci wàllu arme moom benn buur dong moo ci jël arme xeex ak Jolof ngir jot indépendance sam muy la Kajoor ci Amari Ngoone Sobel teraanga yi moo doon ku fi mas a dikk rek gis nga fi loo nga xam ni nekkul woon yow ci sa gox te ñi ko fi defoon aussi dañoo xamoon ni ñoom dañoo doon Sénégal mu doonuñu woon Jolof rek mais dañoo doon Sénégal parce que mbubb yi ñu fi fekkoon maanaam jumtukaay yi fi nekkoon moo doon jub jumtukaay yi doon aar Sénégal ci taarix. pale bi Bouna Ndiaye moo ko tabaxoon ci atum 1899 defoon ko dëkkuwaayam bari na fa ay kàggu ak i matériel yoo xam ne nii buur yi dañ ko daan jëfandikoo. wàllu bagage yi nga xam ne moom la Bouna Alboury daan utiliser di jëm ci comme ay armes armes yu mel ne maqa dóom yu mel ne jaasi épée bi mu daan utiliser pour di ko xeexee jëm ci wàllu téere yi xam moom la daan takk bu daan dem ci xeex. ak li nga xamante ci mu ngi jëm ci wàllu bagage yi nga moom la daan lekkee ay kuddam ay fourchette am ay verre yi mu daan naanee ba bagage yi nga ne moom la daan sangoo sax mi ngi fii ci biir pale bi. kan la Buuna la Albouri. Buuna Albouri Buuna c'est le fils Buuna moom moom bagage yi en grande partie. ndax bagage yi nga xamante ni moom daana ko fi xeexe yu ci ëppoon solo nga xam ni moo taxoon ñu respecté alburi moo taxoon ñu respecté bu na bagage yi boo ñëwee da ko fi fekk muy dàll yam daan sol muy kaala gam dan gàll ci loosam nga kon day seeni bu daan jox bu génn muy eh, li nga xam ne mooy fetalu ma xëdum bi nga xam ne moom la daan yor te bu ko masaani jël du ko xool da daan yëkkat loxoom rek jox gannaaw mu takki ay jaajam ba noppi boole ak gàllaaj yi nga xam ni mbooleem dëkk yi nga xam ñi ngi ci eh, ci àdduna bi te amoon xam-xam te daan bind ay gàllaaj bokku nañ ci muy tob Diouf Diop ngay dégg ci Louga Sidik Top bi Koundou Njare ah, ñaari béjji ni kàngaar yooyu yëpp ay ñaan la yoo nga xamante ni tey ñu ngi ci biir palais bi nga xam ni teg na ko fi te moo doon laxwaayam dem nañu sax bu wax ni ku masaan dikk ngir mer ngir jàkkaarloo ak jëmmam jooju lu mu am am am teraanga soo dikkee doo ko gis ndax li fi nekkoon ci baatin du nga xamante ni wëccoon na ko fi. waxtaan wi nga xam ne moo boole jullit ak ñii di chrétien yi mën nañ la fi la dooree ndax Bouna Alboury Ndiaye dalaloon na fi kii di Jalabert nekkoon archevêque bu Dakar. moo wax la fii ci ci histoire bi itam ni jaloo islamo-chrétien bi ñuy wax ci senegal fii la ko Bouna Alboury Ndiaye njëkk a defee moom l'archevêque de Dakar. nga xam ni kon loolu la la muy firndeel mooy ñoom xamoon nañu poids bi ñu yanu. taax mi nag bok ci site yi nga xam ne UNESCO dafa classé patrimoine mondial ci jamono ji ci situation bu doy waar la nekk. dëgg yàlla bi ñu ñëwee état bi ñu fekkee palais bi xaw nañu naqari ndax euh, gis nañ ne famille bi ñoom def nañ seen kéemtalaay kàttan ñu ngi ko ci góorgóorlu. waaye dañu ñëw tey jii di woo état mu ñëw réhabilité ko ndax ya, euh, palais bi depuis 1875 nekk patrimoine boo xam ne Sénégal dañ ko war a fonk rawatina dëkk bi nga xam ne mooy yang-yang li mu joué ci histoire du Sénégal ndax euh, yang-yang moo nekkoon capitale l'empire du Jolof kon war nañ ko mën a jox gëddaam waaw lancé waat appel ministre bi rek ak euh, même le président mu gestu yang-yang rawatina li fi nekk yëpp dañ ko war a réhabilité ndax jaar nañ ci structure yu bari yoo xam ne dañ ci war a tegaat seen loxo gën ko gën ko gën ko defaraat daal